nii bi yii di mel nit ñëpp maase di bëgg bisam bisaa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi sëriñ bi woona la wuy sil yàlla moo ko defal moo am lu dul jeex te wuy si raw gaa ngi bi muy dem ci géej gi leneen la doon wuti waaye wuteetut beneen cër mu liggéeyal yàlla nag liggéey boo xam ne fi mu koy tënkee te moo di màggal gi nee na juróom-ñetti at yu manqué tuuti ma nekkook tubaab yi ci diggante Lambaréné ak Mayomba dem nañ Gabon nekk Lambaréné war a dem mayom ba bi ñu téléphoné Mayomba colonel ba fa nekk xamal ñu nañu avion bi mënut a ñëw ba tey ndax jaww ji neexul nga xool 1927 wala boog 1895 jën yóbbu sëñ Touba Mayomba ñun dem ba 2007 ñun ñu dem Gabon mënu guñ faa mënuñoo dem ba kon ba fa sëñ tubaab dem nu maayam ba mel juróomi at ya ko fa tubaab ya def sëriñ tubaab réer leen ci maayom ba gisuñu ko ndax ñaari at yi la ak tuuti la def ci biir Gabon yépp waaye cinq ans yépp maayom ba la ko def sëriñ bi nee na looca bi ma yóbbu maayom ba looca bi ñetti soldaara ci ne ak samay bagage booba lu ci tubaab bi jublu nañ ko sànni génn ci moom te buñ ko yóbboo iilu maayom ba duutu del si ndax foofa nit ku fa dem ma sa faatu nga sëñ Bamba képp wàcc ak i bagaasam yéeg ca montagne ya ñu dëpp ak looca bi nee na dara luy nit luy nuru nit wala luy nuru lu nit defar rombaatuma fa juróomi at sëriñ tubaat képp ne fa di tagg di tagg rasulullahi salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta maa atisaa yi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 jëmm jéey mat waaye col gi mat te mbubb sax dañu koy fóot yee salam gaa ngi sëñ Babacar jaxatee tam am na lum nu waxoon ndoortel jumaa ji lu yéemoo yéemu way yaa ngi bi mu jubee biro Ndar lislaam dafa daw làqu ci ginnaawam alxuraanul karim daw làqu ci ginnaawam xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daw làqu ci ginnaawam ne ko rekk waay Ahmadu yow rek lan am mu wax ne moo ko bindal boppam wax ne farra liyal kitaabu wal islaamu wa ummatul maahi fala ulaamu lislaam yëkkati ko daw xel ne ko yaa si Bamba fii lay ci jant yow rek laa fi dese alxuraan ñëw ne ko yow rek laa fi dese xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daw ñëw ne ko yow rek laa fi dese waaye mu wax ne faasal kitaabu wal xadiisu wal ulum annaafiaatu bii wa kaana lil alim mu sëgg ci biir ndar bi julli fa ñaari rakka ñaar raaka yooyu salaatul xudum la tudd kuy door a yegg ci barab yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa boo yeggee nga daal di julli ñaari raaka ñaari raaka yooyu moo tudd salaatul xudum moo tax biñ ko bëggee dundal ci ndar Mawlaana na Abdoul Ahad Mbacke moo ne nañ ko def tàkkusaan di ko def julli farata li dee si am ci jumaa ji jar na rajax sa bop te ngir bamba war gaangi ngi nak, ji nag léegi bi mu yeggee li fi das magal gi rek te bisis gu mag gaangi magal gi nak nguñ ñaan ay nit ñu gore lepp lu ñu deful ci bes bi dañ ko mënul si sëñ Touba rek ñu ko jaaral parce que gëmuñu kenn yaakaaruñu kenn bëgguñu kenn yaakaaruñu kenn ràmmuñu ku dul sëñ Touba moo lay ràmmu àdduna ràmmu la àllaaxira kon si maa ngi lay fedd ne fii ay gore ñoo fi nekk ñiy jàng xasida bi yépp ay doomu ngu jàng fukki at ci ginnaaw bu ay feet xewoon fii ay sabar ngay dégg ay tànn bee ay feeti cosaan waaye amul dara lu xewati fii te doo gis ay kuréelu sëñ Tuubaa moom la ñu xam moom la yaakaar te moom la ñoo ba tax na Ngoundiane fii mu toll Mbàkke bés bii njort naa ne boo fi dellu siwaatee incha allahu rabbi xéewal yi ñu fi indi sëñ Tuubaa indi ko fi kanam rek lay jël di sant bu baax taalibe yi ci taxawaay bii ñu def ci bés bi ngir jëmm sëñ Tuubaa rek lu ci waaye am def nga ko